السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلجي رواتنا بوكي تالبي ودائرة مفاتيح البشر بو انويسة غسان برجة بو سان لوي مويو مامبرم يب اك خارجي اك سوبي اك سيمباتيزان يب تي بينا خمنا تي تخير ويك Institut d'excellence Al-Bushri, qui la peau de la première pierre. Lors de samedi 6 août 2022, nous avons le siège de l'Hélipore. xam ngeen ni daayira Fatul Bichri daayira xam-xam la ndax li ko sos mooy jàng ak jàngale ak dimbalante ci wàllu xam-xam ak ci wàllu social loolu moo waral mu yëkkati projet bu toll nii nga xam ne projet bi rek ëpp na téeméeri million jëme ko ci dëkk bi jëme ci liggéey Sëñ Tuubaa bi ngir bëgg bokki taalibe yi mën cee sàkku xam-xam te loolu dafa dafa dëppoo ak doxalin dëkk bi dëppoo ak ni Sëñ Tuubaa soso woon Tuubaa mooy wajal hudax ban maskana taallumi wa mawda al fikrati wa tafahum ci loolu nag la Fatul Bichri Diop moom ci xalif général des Mourides Cheikh Mouhamadoul Mountakha yàlla fi lool te wér laaj ko ndigal sëñ bi bëkki lool ba sax wax ne day dugg ci liggéey bee te mooy liggéey université bi joxe ci ndigal ne boole ñu ak Cheikh Ahmad Badawi Mbacke mi nga xam ne kenn ku ne xam na ko ci wàllu xam-xam te mujj taraw rayaxin kon Serigne Ahmad la ñu Serigne bi booleel moom it mu am ci mbégte mu rëy ndax koleere daayoo bi ne yàgg na ci fas yéene ànd ak ñoom loolu yi nag Serigne Bassirou Mbacke Abdoul Khadir mi nga xam ne mooy kaddu yoonu murit di wollere di soppeb daara ji di ku yàgg am relation ak Mafatil Bichri moom itam dana ca teew ak Serigne Abdou Samad ak kilifa yu bare bare kon nag mbokk yi bis baa ñu noonu na ko ñëpp waajal la tey ñaan suñu boroom yàlla na bokk liggéey bi na bokk ci liggéey ya muy ndamoo ëllëg yomal xiyamatul akbar wasalaatu wasalaam ala rasulillah